donc loolu bugguma ko woon yàq te mënul yàqu yaayam sama xarit la heure bu ñu rombantee dañuy nuyoon nuyoonte ñaanalante waxante lu baax waaw na nga def maa ngi lay ñaanal yàlla la yàlla nangam ak nangam loolu dafa sedd si xol te yaayu dèjà la. bu baax Babacar ndeysaan yàlla na yàlla guddal sa fan. boo yow rab bi dafa war a may journaliste yu bëri yu mel na yow parce que yow xam nga li may wax bu baax. donc te ñu bëri souvent comprendre ñu message bi il pense que message bi ay message ak lu brique And uh, wala lu ñuy mbalax wala desaay nangam ak nangam ak nangam certes musicalité bi si mais lu ay ay rage la yu ma dencoon yoo xam nañ ma yàggoon nañ ma si tooñ ku mel ne mi nga xam ne vidéo bi mu ci kenn bro pour commencer Deyza may wax bu Akhlou Brick ñoo bokk benn koñ man ak moom Tabangoy déjà da ñew sama galé loolu ma la koy soog wax daawal juk sama kër man boko na ci ñi mu jëk wax né ne ma dafa am benn groupe bu ñu bëgg tek teg mbuur bu tuddu akhlu brik déjà am bindé seen kër ñu sama galé tok rap li ci xew yalla baax na duñu wax seen talbe Cheikh Ibrahim lañ yor ma jikko jigen duma tok di di ak nit ki dara afta ciow am ma tok di wax mais dama lay juñu rek dina da daan ñew sama kër te bokku na ci ñi mu wax né ma am nañ groupe bu bess fuma ma ak ben copain mbour bu tuddu akhlu brik lolou li ma lay wax ni yàgg na barki Maulana Cheikh Ibrahim sama koñ bu de ñu ngi may xam nañ lu may wax mais deux heures bi akhlu brik commencé juk son bi ñëk def pour out buntu mom moy ki ma ñëk clash man moy ñun la boy kan graawal won si man gaa yëpp ñu ngi doon xaar si moment bo ma ton c'était en 2012 xaw 2013

nduguyu konkong si maral taal suufu rifu mhm. ne fa konkong xanaa maral taat ñi fa riigu mooy première clash bi mhm. taxawuma si clash boobu am na beneen son ba tudd biñ naan mënu leen rap nii nga mhm. ku si seen xel paan ku si ku si ñu yeggali saaga uh-huh. boobu man maa nekkoon le seul rap artiste fii sénégalais buy rap di saaga si tontuwuma da di mënuma top seen son ak son di génnee vers di décortiquer. famous. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñuy wax actualité Sénégal yi famous. Mm-hmm. coow yi fi amako ak kooku damay xam géej gi nan nga nag. lyriquement lan moo war a dugal famous Cheikhou Chérifou mi nga xam ne l'histoire ça date depuis mm-hmm. vingt ans si ginnaaw. ok Cheikhou Chérifou. aussi c'est pas Cheikhou Chérifou. c'est pas Cheikhou Chérifou. c'est Cheikhou Chérifou. Et il a bien dit che mhm. Ok. Si monté nga son bi. d'accord nga ni ni si bi ni mu ni mu rifu bi rifu. Mhm. bi trop c'est trop. vraiment parce que comme li may ara ay rakam ay rakam lay andal man. Mhm. ay rakam xam bu rombé sama koñ dañ may bëggee dañ may nuyu mhm. dañuy showante love yoy bëgguma ko yàq parce que mom bu xooloon si loolu mhm. yu bëri sax waroon na baye ara wax ko mom mune non vraiment relation apt aptu aptuma mhm. pour wax lolu si Rive parce que koñ lañu bok mais mom apt na pour wax lolu ci man légui son bi bu clash li nuñ koy woyé juste kii la rek juste alerte la rek lu muy tang tàng yëpp sénégalais yépp di wax son bi viral ci net bi wallaahi wóor na Maulana Cheikh Ibrahima Niass du clash clash bi foog ñoom foog ñoom. Mhm. ñu tontu mhm. ñuy soog a daaneel barrières yi. may xottiyee Sénégal ba Gambie si boobaa la xam ne hip hop Galsen gars musuñu clash. Mhm. barki Cheikh Ibrahim. justement parce que man ci son bi maa ngi dégg ngay wax na leen buñ ko ragal quoi buñ ko ñemee nañ ñëw bettu beeg. nañu leer. brode na ah, leer yow tey yow tey lan genre bu day sa ñëwoon tontu. wala ara ñewon tontu kon pere nga pour beeg beeg bi quoi. ragaloo loolu non mais mais luy ragal. nañ tontu suba ginnaw suba son bi genn tantôt aussi ben ben la rek quoi on est des artistes yegul ci tiirante fetal wala ci jaasi wala ci paka mhm. donc clash le ku nek day défendre sa position ku nekk dafay défendre sa royaume. Mhm. c'est des kings fi ñu nek man king la fi ma deug j'ai des fans qui m'attendent eux ils ont des fans qui les attendent. Mhm. dégg nga de ñoom am nañu ay fans yu leen di xaar man am man am naa ay fans yu may xaar quoi musuma classe ku ma tooñul. mën naa yëkkati sama loxo Sénégal musuma saaga ku ma deful dara. wër na Cheikh Ibrahim. musuma saaga classe bu ñu dégg rifu def na ko xam nga pour lan du ma classe gratuitement parce que je ne veux pas ñu ne dafay wut si buzz. li ma yàlla may si talent rus naa sukkandiku si doomu aadama pour génn. barki Maulana Cheikh Ibrahima Niass li ma yàlla may si talent ma ko koy sante man rifu rus naa sukkandiku si doomu aadama pour génn déjà classe na ma cent cinquante neuf mille fois yoo xam ne mën naa la ko décortiquer araf par araf rime par rime son par son mhm. te muñ naa ko léegi bu ma neexoon comme li gars yi di wax bi mu lay clash 2012 pour lan tontu 2012 nga bàyyi ba 2022 yow booy tooñ tooñal mhm. bul bul xam ki nga tooñ kañ lay fayu bu ma neexee sax ma dàqu clash yooyu yëpp ne clash yu 2012 bi laa fayu parce bor la bor du yàgg du yàgg booy leb lebal même boo tukkee boo delsee fekke fi borom bor bi di nga ko fay bor la ma lebaloon 2012 ma fayee ko bor bi 2022 man maay xool moment bu ma neex ma fayee ko ko parce que moom bi muy saaga Rifou bi muy classe Rifou boobu moment boobu il avait besoin de l'image pour Sénégal xam ne index na Rifou droit droit laal na Rifou clash rive quoi touché na ko. donc moment boobu daf ko cherché ba xam ne moment bii la man maay xool moment bu ma neex. ma répondre ak lu brique bu dee dañoo dàq clash yëpp ne waxul ak ñoom. léegi nan na gars yi sukkandiku si clash 2012 bi. aussi li gars di wax ni Niz man. a don't give a damn brother. barki Cheikh Ibrahim. mais am na lu ma la bëgg